signé nañ convention bi nga xam ne dafa lëkkale en tout cas collectivité territoriale yi nga xam ne mooy Sibassor Kahone Kaolack mais également conseil départemental te liñ ci jublu mooy xeex sibiru ndax sibiru ku nekk xam na ne vraiment jàngoro la boo xam ne dafay sonal askan bi te itam léeg-léeg sax marée des taal yi dafay boom ay ay nit ba tax na nag 3 Cap Santé jóg ne moom li ko tax a jóg mooy daal fexe ba nga xam ne collectivité territoriale yi ñi nga xam ne tudd nañ leen léegi wax deug yàlla ñu dem bo dootuñ amati ben cas de paludisme lolu moy xalaat bi ci lolu lañuy ñuy liggéey te ñun en tout cas au niveau de Sibosor yag nañ di ci liggéey ba tax na sax jot nañ ci am sax ay résultats yu mucc ayib waye nak ba tey doyul li ñu bëgg moy dem ba nga xamné ben sibiru dootul am en tout cas ci suñu collectivité territoriale. comme ni ma ko waxee légui ci français dinañ lënkale suñu doole ndax yàlla dogal na defo nañ fi séminaire boobaak légui yaakaar naa matul weer te ñun ñooñu ñoo fi daje won wax deug yàlla waxtaan ba xam. yan action yan activité lañuy une euh, fédéré les ñuy ba nga xamné li nga xamné mom lañ soxla té moy fexé ba nga xamné sibiru bi dotul am ci suñ collectivité territoriale yoyu vraiment yalla dimbale ñu buñ mën ko atteindre ba donc dinañ bolé suñu doole bolé suñu xalaat bolé suñu moyen ah hein, bolé suñu xam-xam bo yalla dogal loolu nga xamné moy objectif bi té moy fexé ba nga xamné sibiru am fii en tout cas si collectivité territoriale yooyu yàlla may ñu dim ñu ñu atteindre ko. askan bi xam nga ñoom sax euh, mën naa wax ne bi ñu ñëwee fii atelier waa comité de développement sanitaire ñëwoon nañ bajenu gox yi ñëwoon nañ donc ñooñu dañoo ñëwoon pour représenter à peu près askan bi. waaw bu ñu delloo itam du tere nag dinañ woote ay ndaje woote ay réunion su ko defee ñu yebbi li nga xam ne moom lañ jëlee fii. waxtaan ak ñoom si convention bi nga xam ne signé nañ ko ba kenn ku si nekk si askan askan bi nga xam exactement ban taxawaay nga war a mën a am ba li nga xam ne mooy suñu mébét mooy fexe boo nga xam si biir dootul am vraiment yàlla may ñu ñu atteindre ko daal. tey signature bi ñu def nii dafay jëmmal li nga xamante ne mooy taxawaayu 3 santé jëmale ko ci yokk euh, wér-gu-yaramu yaay yi ak seeni doom. alors xam ngeen ne ci loolu la ñuy dox ñun trois cap santé moo taxoon ñu même signé woon ak union des associations de d'élus locaux pour que alal di ñuy def ci santé gën a yokk ci noonu lañ ko jëlee également tànn collectivité locale yi nga xam ne tey tey ñoom la ñu dajale fii muy Kahone Sibassor ak Kaolack ngir ñu signé convention boy pax xeex lu jëm ci siburu gën a tar ba nga xamante ne bu ñu paree ci li ñuy def mën nañ dem ba ñuy wax zéro kaawu palu maanaam zéro kaawu sibbiru ci gox yeex goxaan yooyu nga xam ni moom la ñuy signal alors muy loo xamante ne mu ngi jógee ci atelier bu ñu fi defoon les euh, 4 et 5 bi passé euh, ba maire yi jëloon engagement yéene donc ne dañ koy def yéene nag daf dëgg la baax na waaye jëmmal yéene dafa am solo tey yéene boobu la ñuy jëmmal ci convention yi nga xam ne signé nañ ko pour mën a lépp lu jëm ci dox goxaan yi nga xam ne moom laa cité muy Kaolack muy Sibassor ak Kahone bu ñu jógee fii dinañ dem Touba bu ñu demee Touba lu mel noonu la ñuy def ndax ñëpp xam nañ ne siburu li muy rey bari na donc ñu jàpp ne maire yi dañ ci am wàll ba bu bare et donc tey bu ñu gisee ay maire yu jël seeni euh, yéene dogal ne dañuy jël xeex siburu dañ leen ciy gën a jàppale donc li may wax rek mooy que ne lii ndorteel rek la ndorteel la moo tax pour le moment ñu laalagum communes yi rek yi nga xam ne mooy bu Kaolack euh, Sibassor ak euh, ak Kahone di jëm yu Touba yi mais suñu yéene mooy ginnaaw Speak Up bi nga xam ne moo ñu jàppale ci programme boobu ñu gën ko tijji ba gën a laal lim bu gën a am doole ci ay collectivités territoriales maanaam ci gox yeex gox goxaan